jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokk internet yu 5M TV Sénégal jàngeen jëf ci teewlu bi mbokk internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bi xibaar yi Pape Alé Niang daal di àddu ci wàllu tension politique bi nga xam ni nemmeeku nañ ko jamono ji muy àddu wax itam jëm ci membre conseil constitutionnel yi mu du leen woo rek jëm ci wàllu résistance ginnaaw rek lu jëm ci wàllu politique bu doy waar bile maanaam kon politique bu jaxasoo bi nga xam ni nemmeeku nañ ko ci réew mi mu ni loole boo moyuu rek dana yàq li nga xam ni moom la ñu daal di gis jamono ji conseil constitutionnel moom ginnaaw rek jaaxle bi nga processus électoral yi lee fii ci réew mi bu ñu sukkandikoo eh, ci xibaar yi nga xam ne jotees nañu ko itam jëm rek ci lëkkaloo bi ak parti démocratique sénégalais di PDS ñoom ñu bëgg rek tëral ay mbir ginnaaw itam membre conseil constitutionnel bi eh, solo si nekk rek jëm rek ci ñi nga xam ni yóbbu leen ci ba ñu démissionné loolee ñu jàpp ni kon du sax mën a nekk ginnaaw élection yi nga xam ne bëgg nañ ko dàqat di nag jëm ci jafe-jafe yi nga xam ni jamono ji eh, gis nañ ko ak réeroo bi nga xam ne am na ci seen biir ñoom membre conseil constitutionnel ni kon ñu ni duñu bàyyi benn yoon wàllu politique du dugg ci seen biir ba di leen xaajale ndax la def dañ koy tekk ci loi ci yoon la mu daal di tëral ñu ni ñoom kon taxaw nañu temm ngir rek li jën ci mbir mi situation boobu nag fi mu nekk nii nag ñu ni boo moyuwul du nekk rek lu neex ginnaaw rek nekkul luy soqali wàllu politique waaye dañuy taxaw rek xool li nga xam ni moom la yoon daal di tëral ndax dal rek ak jàmm ak salaam démocratie lañu soxla ci réew mi ndax loolee mooy li am solo ginnaaw suñu institution yàq tamit climat politique bi mu nekk rek lu dal ñu xaar nag jëm ci wàllu soqaliku waaye itam rek xalaat ni wàllu démocratie rek moom la ñu bëgg kon élection yi danañ ko amal ci jàmm ak salaam te du am benn njuñ njaaj file ci réew mi.